que téléphonique toll na si ay 275 ak auto yo xamni itam dang ko joxone de manière illégale alors tay ki nga xam nekk moo di Pape Alé Niang tijji benn audit euh, audit yi bëgg nga ñëw parce que liñu test ci si waxtu bëriwul ñu teunk audi yëpp ak audi tamit biñu ñu fofu ci douane port autonome de Dakar par Waly Diouf Bodian euh, aussi euh, les audi ci douane Artès gis voiture yi nga xamni ni itam da ko don joxé hein, de manière illégale et tant d'autres et tant d'autres nak liñ daal di wëru mëna comprendre ba tey bi exactement waaw ah, na ne dama waxoon suy bale cuuraay ah. bale balé baxna mais suy suy balé. Léna bo boo mo génné mbot mbóot yeeg yooyu yi nga xamni mom mo moo am maintenant euh, audit aussi dafa nek lu am solo parce que dañu nek ci réew mo xamni il faut qu'on ñu prôner des valeurs de bonne gouvernance et de transparence yow fi ngay liggéeyé bërb bi ñu dénk la ko hmm. baxna na de léeg ñu ñëw saytu la xol caméra yi fu mu toll micro yi fu mu toll parce que lu ñaax am ko benn wala am koo xam ne rendre compte bu jël na lu pour problème dans un pays normal il faut que nous def suivi évaluation et audit du dara parce que si la mbir quoi que ce soit war nga xayma li la dénk l'état des lieux. lan lañ la fi bàyyil la et pour nga xam ko da nga ko daa il faut que saytukat yooyu defar bu ñu defaree la saytu ba paré ñi nga xam ne ñoo nekkoon les concernés ñu laaj leen ñoo ñu tontu su boba nak ñu mëna a tirer ay conclusions pour man euh, c'est c'est c'est tout à fait normal. mais ñaka géré woon exactement. ñaka ñaka géré woon et leur sort. bu fekkee amul sort vous si votre responsabilité est engagée vous n'avez qu'à qu'à rendre compte c'est tout parce que pour man euh, bu amé luñ la denk ñu saytu ko gis ni am nga lo xam ne luubal nga ko ci da nga wara rendre compte. Hmm. c'est aussi simple amul leneen suy balé cuuraay lépp lu jub jubal jubbanti lañ toll ku jubadi mais nañ la jubbanti rek mu jeex tax alors euh, scandale euh, jamono jooju le président Diomaye dem def na exactement ben conseil des ministres mu da mu nek 11e yoon mu koy daldi amal euh, mi ngi exactement c'est la réduction des comptes Cheikh Omar ginnaaw ba ko ministre bi daal di xaar ay ouverture

mais dafa am ay règle nit sax am na sàcc sax am na noo koy jàppee sax nga dem si yoon ñu ne la jàpp bi du yoon looy def du përëx përëx nag. jarul tëbëka dal l' essentiel. opération gox il faut mu am moom. Hmm. waaw ku jëloon alal askan bi nañ la dañu jëlee alal askan bi ba pare après bu ñuy réglé ñu réglé la. Hmm. loolu la.

L'industrie, les frelons de l'entreprise elles ne sont pas sénégalaises elles sont plus étrangères on dépend beaucoup de l'étranger de l'investissement étranger on ne peut pas développer un pays tenir développement endogène pour avoir un développement endogène il faudra une révolution industrielle que le tissu industriel du Sénégal performante bay bay gin réew bay dem di wuti ñun t'ok, wala cabinet turc bu ñuy lekk sax beurre Maroc la ñuy lekk wala Tunisie réew bu bëggee naat dafay am lu koy doxal li koy doxal mooy waa réew mi koom-koom nag li koy doxal mooy réew moo xam ni industrie am am na doole les chinois ci révolution industrielle lañ jaare ma développé seen réew donc jomaay bu dee wax na loolu loolu bu mu yam ci yéene mais jëf la war a doon et jëf boobu su ko defee réew mi naat comme pétrole baa ngi ball mm. lay génne ci pétrole ba nañ koy investir ci industrie nañ koy investir ci mbay mi suñu dix pour cent yi suñu euh, dix pour cent yi dix pour yi am si pétrole bi dix pour cent fan laa ko def. dix pour cent. Euh, ah non sëñ bi ah. booy joxe ay chiffres da ngay joxe lu leer. mais di mais mais mais mais dix pour cent la fi i bàyyi. est-ce que dix la suñu suñu suñu dégg Sonko Sonko moo ñu ko jox ñoom ñu toog. defal naa ñoom ñoo jox chiffres yi quand même. Fallou forage Fallou.

merci beaucoup Cheikh non bàyyi ma laaj la ko man parce que loolu xawma li ngay wax. <laughs> merci beaucoup ñu lay jaajëfal bàyyi nga daal di tagato ah, waaw mais di di nuyu ñep di gërëm ñëpp parce pour man le plus important dañu toll ci ben phase bo xam mm, mm. euh, war ñu rater le coche dañu nekk ci jamono bo xam euh, Sénégal doit sortir. la tête de l'eau et pour sortir la tête de l'eau il faut une réelle volonté de tout un chacun. Mm. pour man euh, réew du président moko defar. C'est une question de, mentalité, de comportement, mais surtout d'engagement. Euh, cet engagement citoyen, cet engagement euh, pour sa patrie. Parce que mm. qu'est-ce qu'on va laisser aux futures générations qui vont venir Qu'est-ce qu'on va contribuer sur le Les John Federal Kennedy, dont ask. what your country can for you but ask what you can for your country pour man ça doit être euh, un de tout Sénégalais à chaque fact que tu te réveilles dis-toi qu'est-ce que je apporter pour mon pays parce que nous n'avons que ce pays mm. et toll nañ ci gap yoo xam ne yu bëri yoo xam ne dañ ci taar day ñu war a def ay jéego yu am solo donc li paa yi doon way naan Sénégal mooy suñu gaal nañ leen mm. jow te mànkoo rek mm. waaw ki ñëw nag te bëggut a jow moom nañ ko wàccee gaal gi rek gaal gi l'essentiel faut tenir le cap

imposer nous c'est à nous de vendre ce que nous avons mm. euh, dans tous les championnats européens c'est les Africains qui brillent donc euh, il faut avoir une souveraineté sur le sport mm. parce que les euh, Américains bu ñuy jaay seen boxe dañ koy defar sport maintenant pour nous compétir à travers le monde il faut avoir une infrastructure am politique sportive mangis suis un athlète sénégalais bu jël champion d'Afrique nee na bu 50 000 cinquante lañ mm il faut nous commencer à la base des sport de masse euh, def sport ci école ci université yi am ay ambition sportive pour conquérir le monde parce que fep fo dem euh, war nañu bok ci réew yi nga xam ñoo fa war a donc pour man yo xam nga ni sax Coupe d'Afrique be y c'est Aliou Cissé moo weere rek xamul dara nak Aliou Cissé classement <laughs> cinq défenseurs ken comprendre mais mais Coupe d'Afrique bi mo ëpp ambiance pour ëpp chaleur et, l'homme africain il est rigoureux et vigoureux d'ailleurs dans toutes ces équipes il y a que des Africains. Mm. si la Belgique joue contre la France. c'est comme le Cameroun qui joue contre le Congo mm. parce que Mbappé est camerounais et Lukaku est issu du du du du Congo il faut qu'africain africain comme ça alors merci beaucoup Cheikh moi je pense que Babacar Kaname euh, réponse bien satisfaire exactement euh, le point de l'actuel on se retrouve euh, demain inchallah qui n'a de que moo euh, euh, ce vendredi merci beaucoup de l'avoir suivi mais également l'ensemble des équipes en régie bonne fin de soirée à tous et à tous CEFAS, le centre de formation africain du Sénégal. École, alternance, école-entreprise, stage professionnel. Reconnu par l'État du Sénégal et le Centre international privé européen des études professionnelles, CIPEP e des écoles internationales. Le premier centre de formation privé au Sénégal. Une école d'excellence et de référence composée de deux départements. Un département des sciences de la santé et un département de management